barke Cheikh Ablaye Fall Ndar barke Cheikh Ablaye Fall Ndar barke Cheikh Ablaye Fall bax baax Cheikh Mouhamadou Ablaye Fall dara ji Cheikh Mouhamadou Ablaye Fall ah bis bi nga xamni ne si moom la Serigne Cheikh Bintou Fall di defal Serigne Alaaji Diop ci bis bi nga xamni si waxtu wo xamante ne wari nañ ba tolo ñaata fan ci wër wi ñetti fan ci ci ci wër ko ri ci la koy def sunu borom dañu baxé won daaw ñu fekke ko ah ren itam sunu borom dimbali nu ba ñu fekke ko ñu ñew bi de nga ma eh, ngir ak ak taalibi ak mom moom nangu àllaaji akuk talibem, ak yaram ak teggenam tegginam tax ñu ñew fi wa ci dara yi Cheikh Modou Blay Fall ndax ki nga bokk señ mom yene a bokk lépp moo tax ñun ñu wàgg señ Modou Blay Fall ñu tew fi ah, teew fi teewinu taalibe teew it fi tam ci ndigal señ bi ndax sëñ moom lépp loo xam si ab taalibe ma ngi koy def su sañoon taalibe mi yëpp bokk fa daje fa te sëñ Cheikh Bintu mooy sëñ Modou laay sëñ sëñ Modou Laye mooy sëñ Cheikh Bintu kon lépp benn la di ñaan sunu borom yàlla dolli leen jàmm dolli xéewal yi ñu teewe koy déwéni déwén sunu borom def fi wàcce fii xeewal ak naataange dañ teewe ko ay déwéni déwéni déwén ndax bisi bi moom sell na rafet na màgg na Euh, rawatina ñu ñi nga xamante ne bii ñoo alaaji ñoo bokk buntu wala ñu bokk wasila ci maam Cheikh Ibrahima Fall muy Serigne Cheikh Bintu Fall ndax euh, bis bi mu ko defal ñu ñëpp la ko defal ndax euh, su jógee seeti kenn ci taalibi rek taalibi yëpp la seeti loolu nag day wane li nga xam ne moo dox suñu diggante ak moom wane ne yëg nañu jàpp nañu te it bëgg nañu ndax temps cher na cher goo xamante ne rawatina ci kilifa su xëyee di bàyyi ay itteem suba ba ngoon jot ñëw yendu sa kër loolu rëy na. te it soo ko defalee kenn rek defal na ko ñu ko des ñi ci des ñëpp di taalibe yi ah, ñuy ñaan yàlla na yàgg barkat Seexul Xadim barke maam Cheikh Rafal mu yàgg fee ñëw yàgg fee fekk alaaji ñu ñuy yàgg ñëw teewee ko te suñu borom defal ko ci ay xéwal yu bari yoo xamante ne bi dana mën a taxaw bis bi ci barke maam Cheikh Rafal ah, bis bi nag màgg na màgg goo xam ne ren da am na ci sax ñoo xam ne ay gan lan ñoo xamante ne bi ñu ràññeeku lan ndax ku ci mel ne Sëñ Fallou Mbacke kenn ku nekk xam ne taxawaayam ci Touba ah, rawatina ab liggéeyam Eh, kon su alaaji jele bis bi dara jaal ko ko lolu yalla na eh, seigne Mbaye Diagne tamit nono Baye Daaru Diagne tamit nono mi nga xamanteni bi ku ko xam xam nga seigne Abdou khader kon lolu sax du hasard ndax bu dee tay alaaji bax daat la nek di def bis bo xamanteni bi da ci sante wala seigne di diko diko ganasi mu jël kenn ci ñewatu seigne Abdou Khadre ko xamanteni bi ku ci ragne ko lon tuddé ko ba paré dekk bax daat kon lolu du hasard kon lolu du du du tombe waaye baatin la. bismillahirrahmanirrahim mina barke maam borom Touba ak sëñ Cheikh borom Mbaor moom sama xol daa fees ba tey samay kàddu di si mën a sori ndax alaaj dafa nekk sama nit koo xam ne si ne moom sibra moo ñu boole te li ñu sibra boole moom mi ngi koy dox bu baax ba bis bii li si war lépp ma man la ko teg sa sama loxo ñu ngi ko si sant bu baax rek si gërëm xam yàlla dogal man suñu kër boo dee xool sax man donc ma fay ab Baay Fall nek talif suñu caxaal mbor di sant sama wasile bu baax muy suñu caxaal borom mbor di ko sant bu baax di ko ñaanal yalla wéral ay ciiram yagal ko suñu kanam ndax mom ko dafa nek sëriñ bu baax ndax sëriñ mat sëriñ la ndax fo genn ñu xam ne ci yow mi talif suñu caxaal mbor nga ay yu kaddu rek li talib bi wax ci mom muy ak baax ak tabe ak woyof sant àllaaji mii rek. Mm, mm. ndax li bis la boo xam ne moom bisub cant la. dëgg la dëgg la cant nag ñëpp la ko defal. Mm, bépp taalibe bu ñëw ak bu ñëwut. muy nga yaakaar Cheikh bañ yaakaar. yaakaar di bis bi ci nga bokk ndax bisub cant la rek. kon dañuy ñaan ci doole yi Fall Ndar. parce que Moudou bis bi yàgg. Ya waaw fenn nag bonut kër kilifa goo dem. fenn bonut. fi ne Tijaan ashadu an laa la illallaah daal boo ko dee wax mhm. ñun ñoo bokk lépp luñ bëgg waaw kon nag ñoo ngi ñaan ci doori kër gune rek kër gune mhm. barke ba fa ne mhm. ak njariñ la ak mbóot ma yàlla wàcc ko fi dolli àllaa ji ndimbal dolli ko yërmal sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billaahi mina seytaan rajim laa hawla wala xawta illaa billaahi al-aliyyil aziim maa ngi nuyu sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mbokki taalibe yëpp. ci turu sëñ Cheikh Bintou Fall. nga xam ne fii ñu teew. nga xam teew. moom lañ fi nekkal. moom lañ fi nekkal. ndax kat. ndax kat. mooy suñu kilifa. mooy suñu kilifa. ginnaaw ba ñu amee baay ba ginnaaw ba ñu amee baay ba noppi. am nañ mag. am nañ mag. te fu mu mën di nekk. te fu mu mën di nekk. man mën di nekk ci àdduna. nee mën di nekk moom ci àdduna. fu mu fu mu fu mu woowee. nee na fu mu ko woowee. teewal ma si béréb sàngam ne ko teewal ma béréb sàngam lu ma mënoon a jàpp na dem defi loola dem defi loola ndax baatum ndigal lay doon ndax baatum ndigal lay doon nee na ngi nuyu mbooloo mépp nag sëriñ bi nee nag mi ngi nuyoo mbooloo mépp di jiital ci nuyoo bi soxna Buri Fall Cheikh Bintu Fall ak soxna Njaxat Fall mee toog di doomi seigne Cheikh Fall mbor di soxna seigne Cheikh Bintu di len ñaanal seen suñ borom yok seen taxaway defal len fan wu gudd wa and ko guwer bu lolou weso serigne bi neena mi ngi nuyu magi taalibe fi tew tambale ko ci Baye Mourou Fall Daya ak Baye Baba Ndiaye mi di wax ak yeen ak Baye ibrahim Diop me ci ciep ak talibi yi fi nekk yëpp nee na bu ci teggu kaddu cant rek mo ci segu nuyu bu baax. di la nuyu bu baax nag. sëñ Alaaji Jóob mii. Alaaji mii. di ko xamal ne ko. di ko xamal ne ko. ab taalibe la. ab taalibe la. ab royukaay la tamit. tab royukaay la it. ndax kat. ñun fi ndax fi la ñu yendu. 11h ba léegi ñu ngi fi. ñu ngi fi. waaye ndax nit ku fi ñëw. benn kàddu lay wax. benn kàddu rek la ñu wax ci Alaaji. Alaaji ku baax la. Alaaji ku baax la. Alaaji ku matale la. Alaaji ku matale la. nee na loolu nag. moom la ñëpp moom la ñëpp ñaan. nee na moom mii toog sax loolu lay ñaan ku ñëw la muy wax mooy alaaji ab taalibi la ab murit la nee na loolu rek sëñ bi nee na loolu rek doy na seede ndaxte yoonu sëriñ Tuubaa wi rawatina kër maam Cheikh Fall liñ fiy nawe nit du lenn ak taalibi rek ak taalibi rek lañ fiy nawe nit te loolu nag mi ngi ci àllaaj joo mii nee na ndax moom ba mu xamanteeg moom ba tey ba mu xamanteeg moom ba tey ak taalibe rek sëñ bi neen ak taalibe la xam ci moom yàlla nag yàlla nag yàlla rek a tax muy wax nee na waxewut bakkanam waxewut leneen yàlla rek moo tax muy wax nee na ba mu ko xàmmee ba léegi nii la ko xàmmee loolu nag day delluwaat ci waxi sëñ Ablaat ndax sëñ Ablaat da ne woon ñaari façon nit ñu am ñaari façon nit ñoo am annaasu ak alxawmu ak alxawmu annaasu Fokus gis bopam faré kaw. ay loxam di lang. ay di lang. muy dox muy dox. naasu ah, mandarga mo koy def ci nit. mandarga mo koy def ci nit. nee mandar mi koy def ci nit na ci. ren ba dewen ren ba déwén. la nga xamoon mom dara soppi ko ci ay dara soppiku mak ay waxam ak. ak lu muy def dara soppi ko moy xawmu ñu ngi ñaan ñu ngi ñaanal mbokk yëpp. ngi ñaanal mbokki jullit yëpp. suñu borom dool leen taxaw. dool leen a taxaw. sàmm leen sàmm leen aar leen yiir leen may leen xéwal yu yaatu ndax fii kat ku fi toog ku ne lenn mooy sa yitte xéwal yoo mën a liggéey sëriñ bi rek ak loo yore sa njaboot nee na yàlla na nu ko yàlla defal nee na ñu ngi ñaanal tamit suñ baay bu tedd bi sëñ Modou Abdoulaye Fall Ndar suñ borom yàggal ko fi sàmm ko ba lépp lum naal ci yoonu baayam bii suñ borom jàppandal ko may ko wér taalibe yëpp jàppale taalibe yëpp ba lépp lu señ bi woté rek ñu man ko té jekk ko wax ji nak néna mën ta guddu ndax kat ndax da dañoo mënut wax daa da lu mënta ñàkk rek waaw daa mun doon lu mënta ñak rek motax ñu def ko waaye nak ñi ngi sant ñëpp ñi ngi sant ñëpp rek